nuyu ñëpp kontaanaat ci saa yu ma ñëwee ci UCG Sonaged fekkaat leen damay wax ni Mass Thiam am na lu bëri li fi wax dafa oyof rek nekk directeur loyal engagé mais mën naa wax lu raw loolu ci moom xam nga man yàlla dama bindee man du je suis un sportif du ma suñu jëf le premier novembre deux mille vingt président ma ministre de l'urbanisme du logement et de l'hygiène publique mu recevoir ma le 3 novembre mun ma dégg naa la secteur bu méttee métti mais dañ ko fekk benn waaye bu tudd Massiam boobu xaw ma mooy coordonnateur du CG c'est un homme compétent et brillant si vous faites une paire si vous faites une paire vous irez très loin et man dama dégg ndigal man dama dégg ndigal je suis un fonctionnaire man au-delà de la politique je suis un fonctionnaire fonctionnaire te ci fonctionnaire yi administrateur civil laa ci administrateur civil ndigal lay wéy président bi moo waxee loolu ba tey nii ci loolu lay dox te lépp lu ma président la bi novembre ci march am gis naa li ko raw disponible sérieux et respectueux ak boo dëgg ay nit am na particularité dafa am ñu nga xam ne jànguñu ba mu am les plus hauts cadres am des syndicalistes chevronnés ñoo ñëpp boo nekkee nga di yore leen ci même famille c'est ku nekk am na loolu soxal moom te lu koy lal lu koy lal du alal du du lu ñu leen di jox mooy respect te gis naa ni marchand dafa respecté nit respecté nit moo indi jàmm ak syndicat yi fi moo indi jàmm ak seen agent yi fi nekk respecté nit moo tax moom ak directeur yëpp ñu juboo benn directeur benn directeur directeur yi ñu yor yëpp André Sonaged bu boîte bu mag a mag te ci benn at def na ko boîte yu gën a mag tey ci Sénégal malgré loolu man mosuma dégg benn directeur ñëw nee damay seet ministre di boole Mass Thiam mosut am directeur directeur yi sax xaw ma leen sax parce que kenn ci ñoom soxlawul ñëw ci man benn agent benn agent xam nga léegi portable yi réseaux sociaux yi c'est partout benn agent musuma bi yónnee benn mot pour ne ma kontaanuma ci Mass kon nag kon nag bu ngeen kontaanee ci Mass yéen agent yi ak directeur yi ak ñi muy liggéeyal da ngeen xam ne ministre bi ak président de la république nañ lu raw loolu xëyu ndaw ñi président 67000 la jël ci Sénégal mille jël dugal leen ci xëy ndaw waaye wax dëgg neex yàlla ci 67000 jeunes yooyu président ñu ngi ci ëpp satisfaction te mu koy wax tous les jours mooy ñu jëkk ci Sonaged caaxaanu leen foowu leen guddi ak bëccëg yéen a ci terrain man damay génn 3 heures du matin mooy gis ay xale. portant fièrement, portant fièrement leur tenue, en train de faire leur service civique. Parce que Sonaged, ce n'est pas simplement un emploi ou bien le gérant de c'est un service civique. Parce que vous montrez votre patriotisme, votre engagement, e sans complexe au service de votre pays. Parce que nit nit ku am complexe du développé wu nit ku am complexe doo jógee situation dama la wax toujours dama leen di wax ba ngeen di fàttaliku li ma leen waxoon ci géej waaye ba ngeen di signé. man doomu pépiniériste la jëmbat garab mooy dimanche ma dem di ko jàppale muy jëmbët garab su ma yaay jàngul aani bee togg ak joxe lekk la xam juddu juddu ci néegu ñax néegu banko màggee ci lampe pétrole ak sondel suñ àggee ba fii suñ àggee ba fii suñ àggee ba fii gëm yàlla gëm liggéey nekk ci dëgg yéen su ngeen nekkee ci dëgg su ngeen nekkee ci dëgg gëm seen liggéey yàlla dana ko barkeel te du ngeen ñëwee benn mel mën milliard bi adduna da ngay gëm li ngay def rek boo gëmee li ngay def yàlla fekk la ci boo ko gëmul nag yàlla loolu ci fekk mukk et c'est pourquoi man man de yéen a gën a marqué Sonaged yéen a gën a marqué kat liggéeyu xëyu ndaw ñi président def yëpp Sonaged moom ci gën a wane boppam waaye man itam man itam ci ministère bi ma nekk yéen a ma gën a jëmmal ci liggéey bi may def parce que ministre ministre ministre du dara capitaine d'équipe la rek waaye liggéey bi day fekk nga am directeur généraux yu baax ñu liggéey la ngay porter affaire bi rek ngay tiitaru mais liggéey bi ñoom la moo tax man dama am fierté xam nga mbir mi Kaffrine laa jógee nii mais dama ne maas bu ma ko yónnee SMS la ma ko yónnee. ma ne ko maas boo ma woo woon ci ma fekk la moi j'aime les travailleurs moi j'aime les travailleurs et vous êtes un travailleur vous êtes man lu bari lu bëri tey waa Kaffrine ñu ngi may ñu ngi may wax ni way liggéey nga Kaffrine mais lu bëri yéen ñii yéen ko fa def parce que Dakar la yemoon yéen a ko Dakar tey da dem dans le bi nga fekk fi agent de l'UCG dans le Matam agent de l'UCG et tous les maires tous les maires du Sénégal tey dañ may xëccoo ne ma dimbali ma ci agent UCG c'est parce que yéen a ngi liggéey et c'est pourquoi cérémonie bi ngeen def ma félicité ci DRH félicité ci seen docteur bi félicité ci agent euh, mutuel bi dont le président Madani ci effort yi ngeen def tey ba mën a lancer cette belle cérémonie mu assurance santé c'est un très grand pas loolu itam mu bokk ci li motiver agent un agent on le motive motivation c'est essentiel dans le développement des ressources humaines c'est extrêmement important et vous venez de poser un acte majeur parce que si l'agent est sécurisé liggéey bi day gën a am indépendance day gën a am jàmm te bu jàmm ji doxee liggéey bi gën a baax moo tax li ngeen def may féliciter aussi mais félicite aussi le directeur de l'assurance qui a bien voulu faire confiance à la SONAGED li des ni nag wax ngeen ay revendication ci payoor bi président de la République moo décidé xam nga lu bari masse mu noonu la ko seede tur bii tey ñu tudd SONAGED président moo ko joxee boppam tur bii tey logo bii logo bii masse Thiam dafa ma yónnee dix logo ne ma ministre tànn ci benn ma yóbbul yëpp président ma ne ko tànn ci benn mu tànn seen logo bii mu ne moom avant loolu mu ne UCG warul nekk une coordination yi nekk ci cabinet d'un ministre dama bëgg nga transformer ko en société nationale ñu def ko société anonyme bi ñu ko defee société anonyme gis ngeen ni yoon wi gaawee projet de loi bi deful deux semaines au conseil des ministres yëpp président gaawal bu ñu koy adopté à l'Assemblée nationale mu def ko procédure d'urgence bi ñu demee à l'Assemblée nationale muy député pouvoir comme opposition ont voté à l'unanimité cette loi c'est la seule loi d'ailleurs c'est la seule loi d'ailleurs bu am unanimité durant la dernière législature donc xam ngeen ni confiance bi am na fi yaakaar bi am na fi parce que aujourd'hui Sonaged bokk na ci luy cimenter l'unité nationale moo taxit li ngeen wax ci payor bi seen directeur général porté ko société bi léegi société anonyme la am na pouvoir de lever des fonds am na pouvoir outil yeneen koppar bokkul ak li état bi di di yokk kon loolu la balle est dans le camp du conseil d' administration mais mën na leen wóor ni danaa porté plaidoyer boobu auprès du président de la république et du gouvernement sous la tutelle du président am na lu ñu def ci agent yi fi fekk te loolu itam maas mbaa xam la rek agent yooyu neuf cent soixante onze agent yooyu maas moo ñëw fekk ma sama bureau indil ma kayit yi def plaidoyer ne ma jàpp ci ñu dem ci président ma moom ñu dem ci président président nangu ko ñoo ñëpp président ne nañu def CDI ama santé itam ma rassuré gis naa ne bi ñu ko waxee ñu bëri tàcc na président jël na décision ñu réhabilité leen dugal nañ ko dugal nañ ko ci budget bi man ak maas nañ ko suivre pour l'exécution du budget dans le budget de cette année beneen revendication bi mooy kër yi waaw parce que raxaale ngeen ci nag lu baree bëri loolu tamit xam nga du am problème mais dinañ xool pexe bu ñu koy def man bëgguma dig ni dara di dund yaakaar bu nga xam ne après lu am dama bëgg avec le directeur général aussi avec l' ensemble des délégués du personnel ñu waxtaane ko ñoom un projet projet boobu dañ koy porter loo président de la république au moins bu ñu leen joxul sax logement ku ci nekk ñu ko utal ko terrain viabilisé loolu nañ ci liggéey techniquement kuñ ci liggéey techniquement ñu xool lépp lu muy war bu projet bi pare mooy yóbbu ci président bu validé ko parce que yéen am ngeen avocat avocat bi du Mass Thiam du Abdoulaye Seydou Sow votre premier avocat dans ce pays et qui c'est le président de la République dëgg amul lenn amul lenn lu nga xam ni SONAGED posé na ko mu àgg conseil des ministres président bañ amul amul lépp lu ma wax ci SONAGED ba ci cérémonie bi ngeen def l'autre jour le 7 de dernier au de Assainies seen taxawaay surtout seen taxawaay affaire bi ñuul mais yéen taxaw mobiliser wu engagé wu wane détermination c'est ça la loolu moo tax je vous félicite moi je vous félicite vous faites ma fierté dama ne masse beneen yoon su may ñëw fii utal ma tenue utal ma tenue moo ma tenue utal ma tenue moo ma leen di ma tenue ay tenue nga xam ne suma science lay nekk mu nekk suma science ma ànd ak yéen wane ne liggéey bi ngeen di def j'en suis fier tey moi moi j'ai pas de langage dans ma vie pas de langage moi on peut tout sauf avoir deux langages dans je suis tout blanc ou bien je suis tout noir moi je suis fier de ce que je suis fier de vous. lu lépp lu nga xam ne mën naa ko pour seen condition mën a avancer danaa ko def. lu ngeen ma ñaanteel ma mën koo danaa ko def lu ma mënul tamit du ma dig lu ma mënul du ma dig lu ma wax lu ma mënul du ma du ma tàcc yi du neex rek ba ma soppi lu nga xam ne ëllëg ma tàcc ma dajal non jamais de man ñetti at ci ginnaaw xamante wuñu woon télévision laa la doon gis yàlla def nga ñëw nekk kilifa département ministériel seede bi nga xam ni moom laa bëggoon def ci sa kanam ak ci kanamu njabootu nettoiement mooy amul dara loo xam ni mës ko gàkkal wala nga bañal ko waa UCG wala SONAGED loolu am na solo ndax nekk nañu ci réew boo xam ni réew mu jafe la difficulté yi bëri na ay yoon yoon ànd nañu mën ak yow dem ci couloir ministère des finances pour négocier foofu ay budget ci noonu lañu fexee ba budget UCG jóge ci dix huit milliards dem ci trente milliards tey donc loolu monsieur le ministre am na solo beneen bi mooy ñi nga xam ni jot nañoo sédd maanaam cadre yi nga xam ni ñoo nekk ci UCG oto yi nga xam ni yéen a ngi koy dawal aussi loolu tam ci baaxaayu ministre bi ak jàppandal boo xam ne jàppale na ñetteel bi mooy suñu mbokku journalier yi nga xam ni yàggoon nañ fi nekk ci limu 940 seen processus de CDIsation loolu aussi ci baaxu ministre bi nga ko yàlla suñu borom jaarale. pour résumer daal man musuma xalaat. lu baax proposé ko ko ci lu jëm ci UCG te joxu joxu jugu ci taxaw ci def ci ay jéego yu war ngir loolu mën a antu donc vraiment monsieur le ministre dañ lay sant bu baax ci loolu di ñaan yàlla suñu borom gën laa taxaw ñaareel bi mooy monsieur le ministre jàpp nañ ni tey mbiru assurance santé moo ñu fi boole mais man ci sama gis-gis du loolu moo ñu boole li ñu boole mooy naka la ñuy def pour yokk na pouvoir d'achat des travailleurs du nettoiement ndax bu fekkee ni dugal nañu assurance santé boo xam ni il est vrai que am na quote boo xam ni agent bu nekk yaa koy cotiser te loolu dañ koy yemale ci benn journée de travail muy l'équivalent de trois mille trois cent trente-trois loolu mooy seen quote lépp li ci tegu état du Sénégal ministère de l'urbanisme SONAGED moo koy gàddu bu fekkee ni combinaison boobu mat na li nga xam ni moom ngeen daan jël di ko dépenser ci wàllu wér-gu-yaram mën naa dugg feneen donc loolu aussi yokkute na ci wàllu pouvoir d'achat bu weesoo la protection nga xam ni nga mën a feebar mën a faj donc monsieur le ministre yaa ngi vraiment au cœur de la vision du président de la République et de son rôle qui consiste à encadrer les Sénégalais et à les accompagner vers l'émergence donc ki nga xam ni moom la ñu war a delloo ñu kër ngeen tàcc ko bu mooy président de la République ndax li yëpp ci moom la ñu beneen bi mooy monsieur le histoire il faut aussi que nag ñu mën a vers le futur li nga xam ni moom la ñu bëgg monsieur le ministre joxe nga ci sax ay instructions mais am na solo mu wax ko fi monsieur le ministre les salaires du nettoiement sont trop faibles. monsieur le ministre ñun jàpp nañ ni amul benn différence ak kii liggéey ci téléphone wala kii liggéey ci électricité ak kii liggéey ci mbalit bi ndax kenn mën na fanaanoo ak sa mbalit. donc joxe nga ci ay ndigal conseil d'administration mu ngi ciy réfléchir pour xool nu ñu mënee yokk payoor yu nekk ci nettoiement te loolu monsieur le ministre dafa am solo ndax man bi ma ñëwee fi UCG li ma njëkk a choqué mooy montant yi nga xam ni moom la ñuy fay ñiy dem retraite monsieur le ministre il foog ñu góor góorgóorlu ba xale yi bés bu ñuy dem retraite ñu mën a am lu topp donc loolu il faut que seen salaire yi ñu topp ko di ko yokk petit à petit di ko ñu mën beneen bi mooy président joxe woon na aussi ndigal pour programme xëyu ndaw yi parce que kooku c'est un programme à part ñu évaluer ko xool aussi yan évolution lañ ci war a def am nañ ci ay xalaat di dinañ ko sottante ak yow pour xool aussi naka lañu mën def pour gën leen mën a taxaw bi ci tegu directeur des ressources humaines junj na ko loolu am na solo monsieur le ministre mooy wàllu logement je pense que la répétition est pédagogique j'en profite aussi monsieur le ministre pour rendre un hommage et avoir une pensée pour notre ami Omar Sow, l'ancien directeur général de l'urbanisme, qui était un ami de la famille du nettoiement yàlla def mu jugee fii ci ay fan yu néew ci ginnaaw monsieur le ministre Omar Sow dafa bëggoon euh, famille nettoiement nga jox ko aussi ndigal ngir mu taxawuñu pour ñu am ay logement joxoon nañu benn euh, extrait de plan pour cent quatre vingt sept logements bëgg nañ aussi loolu nga accompagner ko ba jëmmal ko ba ñu mën a jot ci attribution mais loolu doyul monsieur le ministre ndax on est quatorze mille euh, familles wax naa ko sànq directeur des ressources humaines dafa wax trente mille personnes mais bu ñu jëlee quatorze mille personnes ku nekk mën a embarquer cinq membres de ta famille c' quatre vingt quatre mille personnes monsieur le ministre c' est quatre vingt quatre mille personnes qu'on va a à avoir une couverture médicale te dañuy ñaan mu yokku ndax famille yi dafay te tey jii ñu ngi ci soixante dix pour cent incha ñu dem quatre vingt dem quatre vingt dix ba loolu nag dafa laaj aussi euh, ngeen am taxawaay bi ci war ndax euh, priorité yi dafa bëri ci dëkk bi mais bu ñu góorgóorluwee tuuti rek ginnaaw kilifa réew mi xaw na ñu jox bopp tuuti bu ñu góorgóorluwee loolu yëpp mën na améliorer donc vraiment monsieur le ministre loolu lañu ñu bëggoon mais en même temps yéen tam ma ñaaxaal leen tuuti ndax am ngeen ci responsabilité jamono bii tey toll ci dëkk bi ñaar wala ñetti mbir moo fi am solo bi ci njëkk mooy civisme je m'adresse surtout aux jeunes du xëyu ndaw yi a góorgóorlu loolu gën cee taxaw ñaareel bi mooy liñ leen jox si ngeen téye ko te xam seen bopp chômage bi bëri na li ngeen nekk bu leen ko xeeb promotion yi ñi ngi ñëw mbir maa ngi ubbeeku am na développement yu bëri yoo xam ne dina ñëw dans le cadre du Promojet na leen ubbil ay euh, professionnalisation c'est l'occasion aussi de rendre un hommage à mon et ami Ibrahima Diagne directeur Promojet ci li mu liggéey ci UCG continuer ko aussi di projeté wu ubbi ay infrastructures yoo xam ne ëllëg dina amal réew mi njëriñ donc vraiment ngeen góorgóorlu il et beaucoup de résilience pour que ensemble ñu mën a avancer loo réew mi bi ci mujj monsieur le ministre mooy su ma ko waxul defe naa syndicaliste yi duñ ma ko baal mooy toujours le problème des retraités du nettoiement problème mu ama Sénégal euh, doxoon nga ci ay jéego ñaari at ci ginnaaw mais bu amoon aussi ñu ngi lay ñaan nga gën ko baral daal ngir seen indemnisation yooyu ñu doon xaar ñu mën ci jot ak jàpp maa ngi leen di gërëm di leen sant